mbokk jullit di mbokk taalibe yu ñu déglu nu fas yéene waxtaan ak yéen ci jëmm ju tedd di taalibe sëriñ Touba ñu gën koo xam ci Ahmadou jaw paxa muy Cheikh Ahmadou Diaw Pakha bokk na ci turam yi mu gën a siiwee malikun nuxaat wal lugawiin maliku nuxaat wal luxawiin bu ñu ko bëggee xamle mooy buurub way dégg naxu yi ak xam-xamu luxa maliku dañ naan mooy mu ngi jóge ci al mulku gi firi nguur malik mooy buur an nuxaat jamxu naxwiyu mooy ku dégg grammaire arab اللغوي جمع اللغويين جمع مذكر ذالم كن بكون انتي ترم يمسي و موي بورو بوي ديغ نحو اقام قبل اللغه موم شيخ محمد موم شيخ احمد جاو بخا ميغي غاني ادينا 1867 ويجرمو غور sëriñ paate jaw la tudd woy juróomu jigéen soxna faati jang mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax paxa dëkk bu ñuy wax paxa mi ngi nekk ci sowu sagata sagata ngéet mu ngi nekk ci sowu sagata ngéet moom ak Cheikh Ahmadou Diaw Paxa bi mu amee juróom-benn at la ko xeetif dikkal xeetif nag dañu naan mooy li ñuy wax ilham yenkewal sunu boroom xamal ko bi mu amee juróom-benn at la ko xeetif dikkal kàddug sunu boroom xamal ko ne nguur si demal jàngi jàng mooy sa mi muy juróom benn at ci la ko xeetif dikkal xamal ko ni ko ngóor si demal jàngi jàng mooy sa wàlla mu daal di takk ay bagaasam tagguwul bay tagguwul ndey ne mes kenn xamul fu mu dem moom a cheikh ahmadou diaw paxa muy jàng ba wattu alquran bi mu tàmbalee juróom-benni at ne mes xamul fa mu dem fam nekk mu di fa jàng alquran ba wattu ko tàmbali xam-xam moog alxaaji Malik si de alxutbu tijaani di njiitul tijaan lu siiw fii ci senegal moog alxaaji Malik bokk nañ daara lu bare bare bare bare bokk nañ daara ab diggante am nañu ne lu bare bari jàngandoo nañu ñoom ñaar Cheikh Ahmadou jaw Paxa nekkoon na ku géeju ci xam-xam comme ni ma ko waxee woon ba siiwoon na ci turo tur woowu ñu waxoon léegi muy malikun nuxaati wal luxawiin bi nga xamee ne siiw na ci xam-xam bari xam-xam lool ba ñu koy coow ci réew mi ci réew mi la ko dikkaloon dikkalaat ko sunu boroom deyaat ko xaatif dikkal ko ne ko demal seeti Cheikh Ahmadou Bamba moo yor li ngay wut demal seeti a Cheikh Ahmadou Bamba nafaana allahu bi barakaatihi moo yor li ngay wut daldi seeti sëriñ bi mi ngi ko gisee Mbàkke Kajoor bi mu seetee sëriñ Tuubaa mi ngi fekk sëriñ Tuubaa Mbàkke Kajoor daldi fay jébbalu gannaaw bi dikkaat na Mbàkke Kajoor dañu ne bi mu seetee sëriñ bi Mbàkke Kajoor jox ko boppam jébbalu ci moom dafa delluwaat paxa ngam dëkkoon wax nañ ne tamit Cheikh Ahmadou Diaw paxa li ko tax a dikkaat wax nañ ne li ko tax a dikkaat Mbàkke Kajoor seet si ku tedd ki dafa toog ca paxa dégg taalibe Sëriñ Tuubaa yi sol gi ñuy sol seeni dàll ci kër gi teppet teppet ji maanaa dàll yi di móolu taalibe yi sol gi ñuy sol seeni dàll yi ci kër sëñ Tuubaa ca Mbàkke Kajoor moom mu nekk paxa móolu gi dàll yi di móolu ñu koy sol loolu moo ko dérangé maanaa moo sonal Cheikh Ahmadou Diaw paxa ba mu jóg ne day laabire si taalibe yi day jóg dafa jóg ñëw Mbàkke dellu si Mbàkke Kajoor laabire si taalibe yi xam ne kon Sëriñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon nekk paxa di dégg dàll yi taalibe yi sol biir kër Serigne Touba dàll yi muulu gi ñuy muulu seeni boroom yi leen di sol lool la looloo ko taxoon a jóg ngir mu dellu siwaat Mbàkke Kajoor ngir wax ak taalibe yi bu nu mënoon a baloo la bu nu mënoon bàyyi seen dàll yi ni sol ci kër ku tedd ki muy Cheikh Ahmad Bamba Cheikhul Khadim ci la bàyyi ko paxa ngir laay biire taalibe yi ñu bàyyi ko bi mu agsee Mbàkke Kajoor sëriñ bi ne ko defal ni yàlla def xam ba pare noppi sëriñ Tuubaa ne ko Ahmadu Jaw mu ne ko Mbàkke mu ne ko defal ni yàlla def ni yàlla def mooy xam ba pare noppi sunu borom dafa xam ba pare noppi yàlla dafay xam jaam mu di ko mooy mooy gu metti sunu boroom mën koo faat léegi dootu ko dootu ko mën a def wala mu teg ko feebar boo xam ne dootu ko tal yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala toog di ko xaar maanaa ba rendez-vous ba dikk mooy ñi nga xam ne ëllëg dañ koy moy fa leen di yóbbu ak ñi nga xam ne dañ koy topp fa leen di yóbbu kon sëriñ bi ne ko defal ni yàlla def xam ba pare noppi bi ko Sëriñ Tuubaa waxee loolu moo xam ne amul ndigal ci laabire taalibe yi bi ko sëriñ bi waxee loolu daf caa dégg ne sëriñ bi daf koo bëgg xamal ne ko yow amoon ndigalul laabire taalibe yi ci loolu jamono jooju nag xam ngeen ne ci la Sëriñ Tuubaa di ba bàyyi ko Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol bi mu bàyyi ko Mbàkke Kajoor jëm si Mbàkke Bawol Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ànd ak Sëriñ Tuubaa dal di dikk mbàkke taqoog serigne bi taqoog moom mbàkke taqoog moom darus Salam taqoog mom daru alimul xabir taqoog mom darul mannaan ba tuuba diir boobu bépp mu serigne touba togo wut ak serigne bi jamono joju ci dir bobu ci la ko sëriñ tuuba tarbiya ci la ko bi di tarbiya nga xam ne jamono boobu bàyyiwu ko di ko tarbiye moom Serigne Touba moog ku ñuy wax sëriñ sëriñ Modou Xari Mbàkke Serigne Modou Xari Mbàkke pof di ñu gën ko wax miine ci dëkk boobu ñuy wax pof di muy boroom pof di ñoom ñaar la Serigne Touba tarbiyaandoo ba ñoo bokk bis bu mu leen yeewi ñoom ñaar ñoo bokk bis bu leen Serigne Touba yeewi bi mu leen yeewee digal leen ñu dem sampi kër maada ñu dem sampi kër comme que tarbiye leen ba defar leen ba àdduna mënatu leen a yàq mu digal leen ñu dem sampi maanaa samp moom lañ cey déggee mooy yor njaboot maanaa yori soxna yor njaboot lijjanti loo leen dundale maanaa kas bul xalaal fàgg lu lew loo leen dundale xam ne Sëriñ Tuubaa kon noonu la daan def tarbiya nit yar ko ba mu ne nër jàngal ko ba mu xam walla mu fekkoon ko mu jàng ba xam ndax li ëpp ci mag ñi bi ñu dikk Sëriñ Tuubaa fees nañ dell ci wàllum xam-xamu xam-xamu diine fees nañ ca dell ndax li la koy xamal mooy Sëriñ Mat Jow Paxa nii ñuy nettali fi mu jaar ci xam-xam ba ñu koy coow ci réew mi am na xista bu ñu nettali ñu ne bi mu dikkee ci Serigne Touba daf ne bàkkoo ko tax a ñëw maanaam bàkku ci xam-xam ko tax a ñëw Serigne Touba ne ko luy say tànk mu ne ko fees dell Serigne Touba ko ñun de liñ xam ak niiw te ñu ne siiwa jëfe ko bi ko ku tedd ki waxee loolu dafa mel ne dënd bi dafa rëcc dafa mel ne ab dënnam dafa rëcc ci loolu ko ku tedd ki wax nee ñu mu ne sëriñ bi daal di jóg daal di jël lu mel ne sijaada daal di jëlub téere lal sijaada gi teg ca téere ba di ko tijji nee na mooy yoolu di yër ngir xam lu ne ca téere ba waaye lu xaj xamul ci ngaj ji xawma ko ca maanaam xawuma ca dara nga xam ne ñu bari sëriñ Tuubaa noonu la def ak ñoom foofu la jaar ak ñoom ngir xamal leen ne xam-xamu waahir bii muy xam-xamu diine bii am na lu nekk ca ginnaawam muy ilmu la dunni muy xam-xam boo xam ne jàng du ko maye waaye xol bu set muy am kashfu jaamu sunu borom ba sa xol leer moo la koy may te loolu dara du ko maye lu dul tarbiya moo tax Sëriñ Tuubaa jaarale leen ci yoonu tarbiya bi nga xam ne Serigne Touba yeewi na leen digal leen ñu dem samp kër moo tax Cheikh Ahmadou mu Cheikh Ahmadou Paxam yi daana wax ne moom dangeen a yeexe Bamba nun nu teele Bamba bokk na ci wax yi mu daan wax dangeen a yeexe Bamba nun nu teele bamba ku yeexe bamba ñii ku teele bamba allahu akbar daana wax ne da ngeen a yeexe bamba da ngeen a yeexe ñëw ci sëriñ Tuubaa nun nu teele bamba nun nu teele ñëw ci sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam ne ne ci ndawam ba muy nekk tout tànk ci la ñëw ci sëriñ Tuubaa ci la takkoog moom taqaliwu ko taqaliwoo kut ak moom ba ni ko sëriñ bi mu teg ca ne ku yeexe bàmba ñee ku teele bàmba maanaam ku ñee yeexe ñëw ci sëriñ Tuba ñee ku la ca jiitu képp ku la ca jiitu danga ko ñee dara ak lum néew néew lii nag day firndeel day firndeel lii mu wax ne من جيش غاب فيهما مضت سنة إلا وجاد بما يقضي الحوائج لي وقبله كنت معه كالوليد له حرفا بحرف صبيا إن جهلت سلي نينا تأتم جيسسين من 1313 بيغا خامي نيكو تاد ku tedd ki senegal yóbbu ko Gabon amul menn at mu jàll mu wéy lu may sunu boroom lu may Sëriñ Tuubaa may na ko ci ak pajuk ajo ay aajoom yépp lu mu ci bëgg faj rek faj ko ci waaye lu ko jiitu moom dafa meloon ne ngone su ànd ak moom noonu rek maanaam gone walit boo xam ne dafa ànd ak moom di ko liggéeyal comme ni ko gone yépp di liggéeyal nga xam ne kon bu ñu xoolee xista cheikh ahmadou jaw paxa li ñu ci mën a jàngale maay maa istafaadu minhu ndaxte xista mag ñi bu ñu koy nettali daa am lu ñu ci war a jànge lu ñu ci war a jële nun ndaw ngir mën koo jëfe ngir mu jariñ ñu ndax ñoom liggéeyal nañ ko tedd ki ba mu gërëm leen ba ñu am ngërëmul yàlla ci moom ñu dem kon ñun lu nu mën a jànge ci seen maanaam nekk gi ñu nekkoon ak sëriñ tubaa lu nu ci mën a jànge nun ndaw ñi bokk na ca lañu ci njëkk jànge mooy xam nañ ne Cheikh Ahmadou Diaw Pakha bi muy ñëw ci Serigne tubaa wala bi muy jóg di am himma ngir jànge alquran xaatif di ko dikkal juróom benn at la kon lañ ciy dégge mooy ñi ëpp ci seex si toppoon Serigne tubaa ñi sëriñ tubaa seexaloon defar leen tarbiye leen yar leen ba ñu ne nër mu boole leen mbooloo ñu ci ëpp ci ñoom bi ñu dikk sëriñ Touba am nañu wilaaya ñu ëpp ci ñoom am nañu wilaaya ndax koo xam ne ci juróom benni atam li koy jox ndigal ci lay ñëw di ko jox ndigal di ko wax ni muy def ba xamal ko fa sëriñ Touba ne xam ne moo yor léppam faaw mu dem jébbal ko boppam ngir mën a am li mu bëgg kon kookee am na xasaais ay jagleel yoo xam ne sunu borom subhaanahu defal na ko ko comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam am ñeenti at ca alimatu saadiya na sayduna jibril dikki ànd ak mikail xar dënn ba génne lumbu deret wu ñuul wala dogo ndawal wu ñuul ne ko lii mooy seytaane ci yow kaskewaat tappiwaat dënn ba ba kenn xamul ñaw ñaw ba fu mu féete sax maanaam fu ñu ko opéré woon xamuñu ko kon loola dafay tegtale ne mag ñi àndoon ak Serigne Touba teeloon nañoo xam teeloon nañoo doon boroom yi jagleel yoo xam ne sunu boroom jagleel na leen ko teeloon nañoo fees dell ci xam-xamu diine tamit ndax koo xam ne dëppoo nañ ci ne mooy maliku nuxaat wa luxawi ba mu siiwee tur woowu garaameeru arab ak làngu arab gisatuñ ko ko gën a dégg ci réew mi ab dënnam set wicc leer nañ sunu borom xamal ko Sëriñ Tuubaa ne ko faw nga jox ko sa bopp kooka loola tamit kadaalika da ngay xam ne kon ñi àndoon ak moom ba alaaji maanik ci boppam reconnaître loolu nangu loola kon dangay xam ne kon ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa doonoon Cheikh ci Sëriñ Tuubaa euh, joxoon mbooloo ñu àggoon lañ ci yàlla ñu amoon cër la ci sunu borom njëkk ñuy dikk sëriñ bi waaye ñi ëpp ci ñoom mu mel ni Mbàkke Kajoor la fekkoon Sëriñ Tuba dafay mel ne Mbàkke Kajoor fa yoonu murit soso dañ naan fa yoonu murit soso ndax bidaayatu daawatu cheikhul xadim Mbàkke Kajoor la maanaam njëlbeenu gu wooteb Serigne tubaa Mbàkke Kajoor la mbaki Kajoor fa la Serigne Adama Gueye joxe boppam ndax ku ne xam na ne Serigne Touba bi Mamor Anta Sali wàcc ab liggéey toog na at ak genn wàll e, necce daara ji e, maanaam li ko way juróom bàyyi woon maamorad sali yëngalut feeñalut dara waaye bi at mi mati ak genn wàll ci la fas daa bi maatu umar ji ñëw xaajul wooteel am nga ndigal ci woote mooy amarani rabbi bi an bi an ulaazima sunu borom digal na ma ma woote nit ñi daw ñëw ci man ci la amee ndigalul daawa bi ca Mbàkke Kajoor fa la Cheikh Jaw Paxam yi jébbuloo bokk na ci ñi ñi nga xam ne fekk nañu fi Sëriñ Tuubaa sëriñ bi màgge woon ko ci zaahir fukki at ak ñeent ci biir loolu danga ci mën a dégge tamit ne sëriñ Tuubaa wax jim wax sëñ mu jow paxa ne ko defal ni yàlla def xam ba pare noppi ak lu jiitu loolu taalibe yi sol gi ñi sol seeni dàll ci kër Serigne Touba mu muy loo xam ne dafa woroog ak taalibe woroog ak taalibe woroog gi mu waroo ak taalibe moo tax sëñ euh, Modou Diop wax jógoon ngir dindi loola. kon ca ngay dégg ne kon ab taalibe bépp bërëb bu ñu bu ñu wormaal waru faa sol dàll rawatina biir kër sëriñam ak lu ko jege ndaxte loolu dafa dàqonte ki teggin maanaam. dafa dakonté ki teggin ci tasawuf ci ahlu tasawuf ndax dañuy tawil waxi musa ja ba ko sun borom ne ko fa laana alayka innaka muqaddas sun min say dal ndax ya ngi ci khuru sel woowu sun borom sel nga dégg ci ne bërëb bépp bo bu nit di wormaal waru fa soli dal waru fa soli dal ndax dal amaana mu taxamul mu yanu sobe te borom du ko yëg bokk na ca la nga xam ne maanaam dañ dañ ko ca bañ yu mel noonu dal ak mbaxana mu yoo xam ne maanaa ay mumayisaat la ay yu ñu ràññee la ci sunu sunu yoon ne mag ñi sëñ Tuubaa doon tarbiya daawuñu doxee noonu daawuñu nangoo sol ay dàll ci keesam daawuñu nangoo sol dàll ci biir kër gu mag gi ak yu ni mel kon loola la euh, la bëgg euh, sëñ Mat Jow Paxa bëggoon a dindi loola tamit kon mën nañ caa dégg ne doonut lu ab taalibe war a def sol ay dàll wala mbaxanaak yu ni mel ci biir kër sëriñam loo xam ne day dàqonteeku taalibe mu mel ne suñu dikkee ci defal ni yàlla def xam ba pare noppi xam ba pare noppi sunu borom subhaanahu wa taala moo bind doomu aadama ne ko maa xalaqtul jinn wal insi illa li abudun bindu ma la ludul nga jaamu ma wa maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutximun bindu ma leen ngir ñu may leel aw ñam ak di ma defaral ay kër ak di ma di di di ma di ma di ma di dimbali déedéet dama leen bind ngir ngeen jaamu ma léeg aadama sunu borom nattoo ko noo xam ne loolee ko borom bi subhaanahu bind day mel ne da ko fàtte day jaamu leneen lu dul yàlla te du tax sunu borom fàtt ko ca sansa te du sunu borom du tax sunu borom mere ko ba tax mu mu mu mu mu ko aduna mu ray ko waye da koy bayyi ba rendez-vous bam ko digon muy mawid ba mu do ko fa kon lolu tamit kaani da nga cey déggé ne nit ki su fekkee dafa gis moroomum mu taalibim ak ak lu ak ak lu ni mel ak moromum julitam mu nekk ci lu neexul yalla su ko mané labiré man na labiré waye bu ko wóoree ni bu ko labiré du ko na ko naqarlu ci xolam ndax loolu mooy iman ngëm gi gën a faible man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatih fa bi lisanihi fa in lam yastatih fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al iman yonent bi alayhi salatu wasalam daf ne ku gis ci yéen lu ñu sib lu ñu tere ni ko dindi ci loxoom njëkk bu fekkee mënu koo dindi ci loxoom mu jéem ko wax ci làmmiñam jéebaane ko su ko mënta dindi ci mi làmmiñam mu naqarlu ko ci xolam te loolu mooy ngëm gi gën a faible mu leer nag mu mel ne kon loolu la sëriñ Touba doon bind boobu la Serigne Touba doon jox moom la doon fàttaliwaat Cheikh euh, euh, Cheikh Ahmadou Diaw Pakha amul ndigal ci lay biire taalibe yi mu mel ne taqoo gi nga xam ne Serigne Touba taqoo na ko tamit ak Cheikh Ahmadou Diaw Pakha ngir tarbiya ko daaru salaam ak daaru alimul Kabir ba daarul mannaan ba Touba nga dégg ci ne kon tarbiya mënu koo def nit lu may da taqook moom ndax ci jamonoom am na ko ma sa ñëw ci moom ne ko mbàkki kat man damaa bëgg ku ma tarbiya mu ne ko tarbiya kat dafa laaj taqoo te man amatuma jotu taqoo kenn demal ca bàll faali jëng defar naa ko mu defar la mu tarbiya la kon nga dégg ci ne kon sëriñ bi tarbiya ci ni sëñ Touba jàngale woon tarbiya ak ahlu tasawuf ni ñu jàngale woon tarbiya wërta mën a sosee daaraam wàcc ko ca àll ba ne ca taax ya kon dafay mel ne tarbiya ba mu waroon a tarbiya donga ya dana des ndax nit ki lu mu taqul rek mu moom ko xëy na donga ya adduna mën na leen man-manee ba boole leen a xarit yu nu wërta àndal su ko defee xar yooyu nu ñu mel noonu la ñuy mel moo tarbiya doon lu jafe lool kon nit mënul tarbiya nit te toqwut ak moom wala bokkut ak wala bu ko defee dana wuuteeg li mag ñi xamoon li mag ñi daan tarbiya ndax sayqu tarbiya dañ naan muy sëriñ bi jàngale jëf mooy roy ma xoolal ni may def nga di ko def sayqu taalim mooy sëriñ bi jàngale wax mooy théorie lay jàngale du def pratique waaye sayqu tarbiya mooy kii jàngale jëf nga xam ne day jëf ñuy xool ci moom jëf ji di ko roy ànd ak muy nangoo muñ fu mu toll taqoog taalibe bi kon lu ma bëgg a wax foofu rek tarbiya ci lu ngay taqoog ki ngay tarbiya daanaka loolu shay'un muhal la maanaam eh, mustahil la lu jomb la maanaam wala mag ñi xamuñu ko woon bokk wala suuxu tarbiya xamuñu ko woon kon loolu maanaa bind la boo xam ne euh, jukki woon nañ ko ci dundug sëñ Mat Jaw Paxa jukki woon nañ ko ci dunduk sëñ ma Diop Paxa waaye fi ñu ko waxtaanee dafa mel ne dafa dëppoog bisub màggalug Mbàkke Kajoor màggalug Mbàkke Kajoor gi nga xam ne sëti sëriñ Baara te xalifa général sëriñ Cheikh Matiley nekk ca bopp ba ñoo dajaloo di ko màggalal di ko màggal ganek jamonoog sëriñ Baara muy Mbàkke Kajoor gi nga xam ne ab sanc la ca mbàkke kajoor gu njëkk ga mu mel ne danañ fa profité waale waxtaan jiima leeral ci sababu li nga xam ne moo indi woon Serigne Mouhamadou Lamine Baara foofu di Mbàkke Kajoor maanaam ba ko Serigne Touba radiallahu taala anhu yabalee Mbàkke Kajoor mu mel ne Mbàkke Kajoor Mamour Abdou Salim moo ko sanc Mbàkke Kajoor fa tax ñiy wax Mbàkke Kajoor muy kër gu mag ga daara ja Mamar Anta Sali moo ko sanc bi nga xam ne Mamar Anta Sali sanc na ko nekk fa luy tolloog ñetti at yàlla dogal mu wàccub liggéey ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ànd ak délégation bi yanu ko jëmale ko deqale ndax sëriñam bi ko joxoon wir wird deqale la waxoon ne nañ ko fa nañ nañ ko fa indi ba nga xam ne jël nañ ko di ko yóbbu deqale nee nañ ko tedd ki dañu ko warloo ci fas mu ne bàyyi leen ma dox comme ni ñëpp di def mën naa ko ngir barkeelu ca maanaam eh, eh, la ñëpp di def maanaam mu def ko ndaxte loolu da ci roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ne xam na ne bi ñu jëmee Badr jullit ñi dañoo manqué woon ay moyens néewoon i fas lool ba fas wu nekk ñett ñoo ko daan toggoo maanaam kenn yéeg bu doxee ba sonn wàcc keneen yéeg fas yonent bi alayhi salatu wasalaam ñett ko seqoon muy marsat ibnu marsat alxanawi ak yonent bi alayhi salatu wasalaam ak sayidina aliyu ñu ne yonent bi tee ngaay yéeg ñu wommatal la ñun mën nañoo dox mu ne ëpp leen ma kattan gënu leen ma bëgg tuyaaba ëpp leen ma kattan gënu leen ma bëgg tuyaaba li ngeen bëgg laa bëgg dafa mel ni Sëriñ Tuubaa kon tuyaaba yu mel noonu la doon sàkku ca dox ba ngir gunge way juróom mu tedd ba Maam Mor Anta nga xam ne bi mamaran seli wàccib liggéey dikk mu dellusi ci daara ji yor ko at ak genn wàll door am ndigalul fas daa wooteel yoonu murit nga xam ne kon yoonu murit dañ naan daanaka fa la sosoo ndax Sëriñ Tuubaa rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat ji ko yonent bi alayhi salaam xamal yaral sa nit ci himma himma mooy tarbiya jàngale ak yare waaye bul yemati ci yare cib dars kese donga bi ñëw nga jox ko bind tàqalikoog moom bul yamati ci loolu rek waaye yareel ci himma ba mu ko waxee mbooloo ma xaaj ñi nga xam ne jàng képp leen fa indi woon ñaanalanteeg moom tàqalikoog moom ñi nga xam ne lu sëriñ bi bëgg bëgg nañ ko fu leen sëriñ bi yóbbu doy na leen lu mu leen def loo doy na leen ñooñu ñoo toog bokk nañ ci dara Daaru Asan bokk nañ ci aadama Adama ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne Euh, bokk nañ ci ña nga xam ne ñoo fa desoon ba ni Sëriñ Tuubaa ñëwee euh, Mbàkke dellusee Mbàkke daaru daaru salaam comme ni ñu ko waxe woon nga xam ne nee ñu euh, sëñ Mbàkke Kajoor la fa sancal sëñ Mbàkke Kajoor nekk fa bi nga xamee ne dem nañ ba mu yàgg Sëriñ Tuubaa daal di woowaat borom daaru daal di ko yabal ca sanc ba maanaa ba mu demee mu sañc ca sow ba moom moom borom daaru maam Cerno Ibra Ibra fati maanaa daal di wuuf njaboot ga ba mu wuufee njaboot ga ab diir ba 1912 ci la ko ko tedd ki bind leetar jox ko ndigal ci mu daarul moxti ku ne xam ne kon foofu la jóge dem sañc daarul moxti Mbàkke Kajoor la jóge dem sanci darul moxti loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo ci dundug jëmm ju tedd ju sell jooju di taalibib sëriñ Touba bokkoon ci jàmbaar yi nga xam ne liggéey nañ liggéey bu rëy ci lislaam liggéey nañ liggéey bu rëy ci yoonu murit muy ak Cheikh Ahmadou jaw Paxa digganteem ak Serigne Touba akuk tarbiyam ba ni ko Serigne Touba yeewee muy xulaasa di ab tënk bu gàtt lool boo xam ne moom lañ doon def ci ak dundam ak lenn ci histoire mbacke kadior don du lepp di yamale fofu kaddu yi di sante ñep di gërem ñep di wax ne wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kullu amin wa antum bi khair ñaata minute la ñaata minute la ñaata minute la